السلام عليكم ورحمة الله بوكين لان يدلان زيارت من بالحق عن برمي سبحانه وتعالى مبالي جدا حديث اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك رواه البخاري ومسلم حديث بس بينا صلى الله عليه وسلم نينا يلا نينا yow doomu aadama bi na ngay joxe te bul ragal ñàkk ndax loo joxe ñu delloo la lu ko ëpp xadis bi Buxaari ak muslim ñoo ko solo mel ni xadis bi dafay ñëw di dëggal aaya boobu borom bi naan ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu rek waaw xadis bi nag xadisul qudsi la maanaam waxu borom bi la waaye bokkul wax la joo xam ne bokkul ak alquran yonent bi nee na yàlla nee na bépp jullit boo xam ni mu ngi dépensé alalam ci yoonu yàlla yéen yàlla buñ ko waxee mooy dimbali jaamu yàlla mooy taxawu lislam bi mooy tabax jàkk mooy defar daara mooy dimbali miskin mooy dimbali néew doole mooy taxawu ay mbokkam te am ci yéene bu baax nee na lum ca a def bu mu ragal ragal alal bi dem ba wala ba ci joxe dépense sax joxe dépense sa kër bu ragal na nga ko ñeme na nga ñeme njaboot ndax lépp loo joxe rek yàlla ci boppam moom dana la wuutal leneen te la mu lay wuutal mooy ëpp loola te dina ànd ak barke incha allah kon liñ ci déggee rek mooy suñu wërsëg nekkul ci suñu loxo ci loxo kan la nekk ci loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk comme nee na moom moo yor suñu wërsëg nag kon nag ñun lim ñuy jox nee na nañ nañ nañ koy génne nañ ciy dépensé buñ ko ragal ndax loolu nekkul suñu loxo te garanti nañ ne lum ñu jox ñu def ko fañ ko war a def danañu jox leneen lu ko ëpp incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullaah al-aziim li wa lakum wassalaamu aleykum